wa ala alihi wa sahbihi bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp te di leen ndokkeel e, te di leen jaajëfal ci xew-xew yi ñu weesu muy màggal gi ak gàmmu gi bu ngeen gisee jataay bii ñu ñëwaat ci seen émission gàggantiku bi nga xam ne MKTV Muxaddamatul Xidma TV moo koy def ci weer wu nekk di ko amal ñaari yoon di dalal ay boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy waxtaan ak ñoom ci bindub diine wala gàggantikub diine boo xam ne dina yitteel nit ñi ci seen àddina di leen yitteel ci seen ëllëg niñ ko baaxoo defee ñëw nañ fii ci Darou Salaam Ndaam kër Serigne Mbacke Abdourahman di boroom xam-xam bu mag di mufti yi di ab jàngalekat doon it koo xam ne ku laa biir ci xam-xamam la ñu ngi koy ñaanal suñu borom mu gën ko fee yàggal te wéral ko euh, xam ngeen ne kon émission yi mujj def booba màggalaguñ ci ay laaj ak ay tont yoo xam ne mbokk yi indi woon nañ ko fii ñu leeralal nañ ko euh, ci biir loolu joxe woon nañ numéro ngir mbokk yi nga xam ne dañuy soxla ku leen gàggante ci seen diine ay laaj ñu envoyé ci ay laaj yi am na ci yoo xam ne jot naa ñëw su ko defee euh, sunu émission tey bi kon dañuy mottali liggéey boobu ci tontu laaj yooyu mhm. su ko defee sëriñ bi kon ñi ñu ngi lay nuyu euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Abdoulahat maa ngi lay delloo nuyoo di wax ne a aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah mhm. di nuyu baax it mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel ëtt yi nga xam ne ëttub xam-xam la la di leen ndokkeel yéen itam ci xew-xew yooyu nga xam ne eh, daa mel ne kër gi am na ci taxawaay yu rafet ci wan nit ñi eh, liy xew te amoon leen njariñ eh, ñaan yàlla barkeel liggéey bi te gën koo yaatal. amiin amiin sëriñ bi ci nuyoo bu am solo boobu su ko defee ñu ngi nuyu sëriñ Abdou Khadir Bousso ak sëriñ Mouhamed Ngom ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ci liggéey bi. Mm-hmm. kon sëriñ bi suñu laaj bu njëkk mbokk mi dafay laaj mu ne. su wàccee soxnaam dal moom bëgg naa xam su fekkee idda ji jeexut nan lay def ba jotaat ci soxna si. waaw kay sëñ Abdou Lahad jërëjëf. wàccum soxna day lu mat a moytu la loolu lañ njëkk wax. Hmm. ñëw na ci xadis wax ne yàlla gën a bañ ci yu dagan yi mooy hmm. fase may dagan na ngir léeg-léeg ñu dem hmm. waaye nag bokk na ci yàlla gën a bañ. moo tax ku koy def war na koo seet loolu ndax li mu wax ni ñaare bëgg ko jëlaat. mooy wane na fase mu ñorutoon wala nag kon di teey lu baax la ak ànd boo xam ne dañ koo fas ci turu suñu borom la koy fecc lu jaadu lu lu ko jara jar lay doon loo xam ne ku ko dégg rek ne ah loolu lay jaadu na lu mën a xew fase ay xeet la fase bi ci jëkk mooy fasem payel yi mooy fase moo xam ne nit ki daa fase soxnaam benn yoon mosu ko fase te buñ ko fase men benn yoon la ko fase yéene ca benn fase kooku fii idda ji jeexagul soxnaa ma su idda ji jeexagul su ko bëggaatee wala mu bëgg dala ginnaaw day wax ne maa waxoon wàqet wala fi wax na wax wàqet foofu dal la baaxee mm-hmm. foofu moom soo ne maa fase woon génn naa ca jërul muy tàggu soxna si jërul muy tàggu ay waay ndax ba tey jii sëy bi tasagul bi dalil ñoom ñaar ñooñu ko ci faatu woon te idda ji jeexut sa morom lay doon bu góor gi faatoo ci diggante boobu soxna si day muuru doon bu soxna si faatu woon góor gi da koy doon ci fii ak iddaam jeexut soxna si bu fekkee yor na ñenn soxna ak kooku maanaam kooku nekk ñeenteel bi mu wàcc ko passé mel noonu fii ak idda ji jeexut mënta takkaat hmm. soxna su mel noonu am rakkam wala magam ñoom ñaar koo xam ne mënu leen a boole ñoom ñaar fii ak idda ji jeexut mënta takk ko ca des loolu day wane ne sëy bi jeexut hmm. kon bu fekkee fa fasem payli la fii ak idda ji jeexut sëy bi jeexagu takk saa yu neexee waa ji mën na ne maa waxoon fas naa la génn naa ci ci lu dul muy laaj ba xam soxna ànd na ci wala àndu ci du laaj kenn loolu mooy bu dee fasem pay li mhm. bu dee fasem yax ba in nag nga xam ne nanguwut fay li nanguwut fay li su boobaa it su ko bëggaatee moom góor gi fii idda ji jeexut sañ na koo takkaat fi ñuy teree fi ñuy teree eh, ngoro wala takk ku iddaw mooy bu fekkee ne keneen a koy labat ko wàccoon mm. waaye foofu it waaye boobaa bu dee fasen bàyyi moom day joxewaat ñu dem mayewaat fasen ci ci ku baat bi ah, lu muy teg mooy fasen moo xam ne du fasen paye daal maanaa fasen mu ne ci diggante eh, fasen mu ndaw mi ak mu mag maa mag la nekk mm. bokk na ci li koy waral fasen moo xam ne dañ caa fay alal fasen bàyyin la la xeeti ki soxna si moo ñëw ne ko. waaw joxe alal ngir ngir ñu wàcc ko ngir ñu wàcc ko daa am xeeti fase yoo xam ne su ko doonee rek fase bàyyi lañ koy tuddee mm-hmm. fase moo xam ne yoon a ko tas fase bàyyi lay doon bu doon yu mel noonu moom doon iddi yi jeexagut mënu ko jëlaat lim mënu maanaam koo fay li mm-hmm. waaye nag man naa ngorowaat mm-hmm. bu soxna si nongoo ay mbokkam nongu mu joxewaat ten ñu fasaat foofu mën nañ ko fas ci biir idda ji ndax ki ko ki ko ki ko ti mu iddaw moo koy takkaat su fekkoon nag keneen na ko bëgg takkaat moom dañuy bàyyi ba idda ji jeex mm-hmm. doo mm-hmm. loolu mooy bu dee fase bàyyi bu dee fase batta nag mooy man ñetti fase bu xasee man ñetti fase ba tey bokk na ci fasem bàyyin fasem payli mii bu idda xasee jeex mm-hmm. soppalu ko nekk bàyyin kooku su bëggaatee day dem ngorowaat fasem batt nag mooy mu fase ko ñett yoon ak mu ñett yoon yi mën a demee ci mazhab Malik mu fase ko la ci cosaan mooy mu fase ko jëlaat ko fasewaat ko jëlaat ko fasewaat ko ñu ne ko ah bi yoon mooy sa ñetteelu fase kon mënatoo koo takkaat wala mu wax benn yoon benn passé ba noppi ne yéene naa ñetti fase la ci yéene mm. léeg gis ku mer ni la fase naa ko fukki yoonu ak juróom na xam ne ñetti fase la ci mosab bi su boobaa faaw idd soxna si iddaw ba iddaam mat yàlla dogal mu am boroom kër kooku ànd ak moom ba jaxasoo moom mm-hmm. ci sëy bu tegu ci yoon ñu dox ba yàlla dogal sëy ba tas mu iddawuwaat su boobaa nag jëkkër ju njëkk ji mën na ñëwaat mm. waaye mënu koo lu dul baax de sawi mm-hmm. kon faaw ñu xam moom ñetti fase yi man la ci bu fekkee daal idée yi yéexu te fase mu payli la maa fase woon génn naa ci lay wax bu dee fase mu ci la ndax fay kon dañ alal wala yoona ko tas wala yu mel noonu day dem waxtaanal bu juboo mm. mu joxe ceen ñu fasaat bu dee fase mu battal ak ñàkk na li fi yëpp soxna si jaarul fen ba tas ci dogal bi yàlla kon mu mel ne mbokk moom moomu doon laaj tamit la bëri na ci mbokk yi ñoo xam ne léeg-léeg dañuy wacc seen soxna bëgg koo jëlaat dem waajur ya lànk te mën naa am mu doon wàcc uh, sunna gi noonu rek nga xam ne idda ji jeexagut mm. ndeke kon loolu maanaam moom daal saa su ko fay la jee rek mm. maanaam soxnaam la donte dellowuñ ko waaw xam nga li sunna buñ ci doon tënk duñu sonn mhm. seen laaj nit mhm. ñi mhm. li leen sonn mooy ñàkk tënk ci sunna jigéen buñ ko fasee daa warta génn kër gi ak lu ma naka warta génn kër gi te idda jeexul yi ma wax ak mu ci ma doon nag bu nekkoon di sëy fa la way toog fa ba idda ji jeex te bu dee fasem payle borom kër bee yooyu di ko dundal dee bà in wala battam dundal ko waru ko waaye dëkk bi mu dëkkoon ci néeg bi suñu ko génne fa la war a nekk ba idda ji jeex laa tuxrijoohunna min buyuutihinna wala yaxruj na ñaari mm-hmm. ndigal la mm-hmm. bu leen leen ni génne ñoom it bu mer ba génn mm-hmm. kon jigéen sañut tas naa mer daal di gàddu bagaasam dem góor sañut na ko génnal sama kër te ñaare fii bu ñu fa sax la yow génnal sama kër li ñu wax ñoo lay amul sañ-sañ warta génn te idda ji jeexul loolu nag bu ñu ko buy fayle yoonu kenn du ci nekk ndax mi ngi ci kër gi idda ji jeexagut ndax bu bu dee fa seen payle ci néeg bi lay dëkk li nga sañut mooy ginnaaw fee fee lay bokk sañootoo dugg ci néeg ba ndax jàmbur la ci ci wet waaye yaa ko war a dundal. su ko defee nag soo nee woon maa ko fase woon génn naa ca mu jeex. waaye bu xasee génn dem nag yeneen baat da ci am loolu lépp bokk na ci lor yi xëtt diine. ndigalu diine. waaye bu ñu ci doon tënku jafe-jafe bari mën nañ ko lijjanti ci yoonu kenn du ci nekk. waaye rek nañ mën a xam lu mën a xew mépp passé moo xam ne fasem paye la moo xam soxna dem wala toog na fii ak idda ji jeexut soxna su waaji la su ne maa ko fase woon génn naa ci fase ma jeex na. ñu ko bañee delloo it moom soxnaam. ñu ko delloowut soxnaam keneen kuñ ko mayut soxna si jàmbur lañ ko may. loolu it lu mat it moom lu am solo la te mat a sëriñ bi kii dafay laaj mu ne daal ñoom seen bàyyi dafa faatu faatu na eh, booba ay gone lañ am ku leen téyel alal ji seen nijaay wala seen menn mbokk seen bàyyi nag bàyyi na fi ay ay jur yu bari ay fasag ak yu ñu bàyyeek ay jur ak ay nangam ay jëfandikukaay daal yoo xam ne moom nag yor na ko di ci jëfandiku di ci dund ba dem bay faatu nag xam naa loolu ñëw ci xelam ci def maanaam maanaam àq ju rëy jooju tax mu bind aw kayit di ñaan doomi ñooña jarbaatam yooyu ne leen kat yéen kat bi seen baay faatoo bàyyi na leen fi alal ju bari nangam ak nangam ak nangam man nag maa ko yoroon waaye waxuma leen woon ko dama bëgg na ngeen jéggal ma àq ji ji nga xam ne ameel naa la ko ci amel naa leen ko ci loolu mu ne moom daal loolu jaaxal na ko ndax euh, suñ ko jéggalee tamit ndax dana tax moom euh, euh, suñu borom jéggal ko ci loolu. waaw jërëjëf si loolu xam naa lu doy war la. Mhm. bu fekkee ne gone yi gone yi ndaw lañ. Mhm. ay jirim lañ. te alali jirim moom borom bi subhaanahu moo ci tëkkoo metti. Mhm. inna alladina yaakuluuna amwaalal yataama innama yaakuluuna fi butunihim naara. te it yàlla daje tëkkoo wa sa yaslawna saxiira. ñu ngi wëlëgee sawar dañ leen lakk. la. rawatina. yow ngay seen mbokk waroon leen taxaw. Mhm. tëdd ci seen alal ah, bi ci des it ay gone yu ndaw deesu leen saraxeel deesu leen mayel. Mhm. Ah, kon seen alal la jël di ci dund ñaari tooñ la. Mhm. mooy nëbb lu ñu ko nëbb tooñ la. lekk gi mu doon lekk alal ji yeneen tooñ la. ak tuub na ngir mu sell delloo ay tooñ da caa bokk. dañ ko xamee tuub bu dee bàkkaar sa diggante sa borom da ngay rëcc la weesu ginnaaw boo bàyyee bàkkaar bi fas yéene dootoo ci dellu. waaye bu dee sa morom jaam nag tooñ ji da nga koy delloo bu dee alal jooju da nga delloo ko alal ji bu dee loo ko waxoon te ko wax nga dem ne ko baal ma kon jéggal la kon gone yooyu nañ xam ne loolu bu xanaa buñ màggee nag xam ni alal ju toll ñu jéggal ko tooñ moom lu lay rëy su am bis suñ ko jéggaloo ñu jéggal leen mu wàcc leen waaye lu mën a xew moom dafa na ñaawte foo xam ne na jàpp ne dund na ay at yoo xam ne ci lu xaram loolu dund loolu nag lu doy war ci ab jullit mm-hmm. waaye nag euh, lislaam it diine moom laabinti ak baax la. dinaa mm-hmm. seen nijaaya gone yi eh, li ma leen di xel ma dañ ko jégal ngir yàlla ndax pertement amul ci jégal gi. Mm-hmm. te aw yiw lay wëlbatiku doon doon seen kaw. Mm-hmm. doonte nag loolu mu def moom kenn wëtt a jéem a roy loolu ci moom ndax dund gum dund ci ci bàkkaar la lu bari ci dund ga ci alal ju liwut la ko doon lekk. te loolu dana juru dana tax boo ñaan ñaan yàlla du nangu même doonte jégal nañ la ñoom am na ci loo xam ne àq suñu borom a joo xam ne n la ko topp. waaye bu ñu ko jéggalee nag doon ay mukallaf jéggale bu màggee fekk nekk mukallaf mu ngi wax leen lañ def lépp ñu ne baal nañ su boobaa mu waaye moom seen diggante seen diggante ñoom wàcc nañ waaye nag mu des nag seen diggante seen borom mhm. ndax tooñu la ñoom dong ndax te daa xëpp ndigalu yàlla kon tooñ na yàlla tooñ gone yi mhm. bu ñu ko gonee baalee nag léegi nag mu lijjante boromam mhm. mu mel ne loolu moom dafa doon loo xam ne day day phénomène bu yaatu ci ci réew yi surtout dëkk yu mag yi dañuy gis koo xam ne bàyyi na fi ñuy jël oto yi di jëfandikoo yi ay façon la waaye fi ne boo xoolee ñuy jël oto yi di jëfandikoo di jëfandikoo matériel bi te ñu ci ëpp alali dénkaan lay doon loolu dafa mel ne xëy na jullit yi wala dañ cee desee xam àq ji nga xam ne suñu borom wax na ko ci dëgg-dëgg waaw xam nga seen laat euh, nit ñi li mm-hmm. ñuy tuddee tawant ya mm-hmm. dañu war di leen def saa su ne saa bu ab julli faato bàyyi gone yi ndaw bu ñu miraas ak bu ñu miraasee bu ñu miraasee gu lépp war nañoo leeral nit ñi. Hmm. àq yi ci nekk. yàlla mu di ko faral di wax ñu ne moom kat bi mu faatoo dafay bàyyi woon nangam njaboot gi jubóo nañ ci def ko nangam. mooy hmm. leen ndax gone ndaw nañ ci ñu ne waaw mooy leen gone gu ndaw moom su mayee alalam dee su ko saraxeel. Hmm. kenn amul droit ci ne bàyyi moo leen jaayam nee na mën nañ koo saraxeel nañ ko nangam. moom alalam kenn du ko dugal feneen ndax yooyu dara waru ko ci kenn du ko defal foofu. waaw ñu ci bëri dañuy wax seen place waaw su màggee ànd na kum xelam nag bu mayee alalam sañ na ko. waaye fii agut foofu kenn sañ ko mayee alalam kenn suñu ko saraxel loolu dama di xam. Mhm. Euh, kuñ dënk lu mel noonu it kuñ lu mel noonu it lislaam tëdawut nga ci liggéey moom. Mhm. ndax euh, Seydina Omar yaakaar daana wax lu mel noonu. wane ne nañuy yaxantu ci alali jirim yi bala ko asaka ja lekk. Mhm. ndax bu mu bàyyi woon ab xaalis at mu jot ñu war a ci génne asaka. gone yi jëm fukki at ak nangam door a baaleex ci diggante bi mën naa wàññiku lool léegi nag bu ñu ko tegee ci loxo yu wóor muy commerce ñoom ñu ci am ñoom xale yi ndax ñoo ko moom ki ciy liggéey di ci am dara mm. ndax mën nañu liggéey ci baabu ba jox nit capital mu dem liggéey su bénéfice ba ñëwee ñu seddoo bu ko defee gone alal ji dana yokk mm. ñu génn waaye mu def si bu màggee fekk mu gën a yokk mm. ci bunt bu mel noonu lislaam xam na ko mën na ko mën na ko jariñoo amaa tëdd ci di lekk moom mooy tëdd ci toog ci sawara di lekk ndax noonu la ko yàlla tudde waaw innama yaakuluuna fi butunihim naaran la wax waaw loolu moom lu mat a moytu la ak lu mën a xew fi mu ne am na seen blaat nit ñoo xam ne seenug sàmm àgg na ci xeeti sarax yii bu ñu demee duñ ca lekk waaw ndax léeg-léeg la ñuy togg alali ji liman gi ndax léeg-léeg nit ki day faatu ñu dem ca magasin ba mu fi bàyyi woon jël ca pep ma wala ceeb ba wala wala yam fi bàyyi woon dal mm-hmm. moom la ñuy jël togg añ jox nit ñi te xamuñ ne dañoo war a. gone yi ndaw a ngi ci yoo xam ne seen alal deesu ko saraxe deesu ko maye. kon ku ca lekk lekk nga alal jirim xëy nag ñu ñu ko jox ñoom mën na ñooy gàddu bàkkaar ba. Mm-hmm. waaye yow it nag jàppale leen ci ci mooy yàlla boo ko xamee ba lépp lekk ci am koy def moo tax ñu bari ñu bari di moytu yu mel noonu. Mm-hmm. te yëpp nag bu ëpp julli xasee faatu dépense wàcc na ko. Mm-hmm. saraxal boppam waru ko dajale boppam waru yooyu yëpp ñoom ay doom yu doon ay mag wala ay mbokkam nañoo dajale seen alal. togg ci ay ñam sarax ko nit ñi ngir yàlla ñu ñaanal ko waaye nag alal ñu fi bàyyi moom te am ñu ko war a doon te tolloole wuñ ci lay tax ñu sañ ko mooy ñoom ñëpp ñu nekk ay mag ànd seen sago joxe seen kàddu. Hmm. ci loolu moom nañ ko fa teg buñ miiraasee oto yi nga yëpp noonu la mel. Hmm. waaye oto muy dem ak dikk am lu cay génn. Hmm. ndax bu oto bu yokkut it liggéey bi liggéey ñu ko moom ñoo ko moom. xëy na bu doon oto def transport mën nañu wéy muy def transport xaalis ba ñu dikk fi ci su miraas jotee bu ñu miraas kenn ku ne jox ko àqam waaye daal yooyu daal lu mat bàyyi xel. bu dee kilifa gu gu faatu bàyyi ay particulier yu bëri maanaam tamit maanaa am ci mag ñi di jëfandikoo particulier yi ak yu demee noonu loolu it àq lay doon ci gone yu ndaw yi wala. ñëpp ndax moom lu jaar rek mooy bu xasee faatu. Hmm. ku yor oto bi dañu dañ la ko war di luye. même kër yi ñu weesagut bu mag ñi ne mag ñi ñëpp dóor ay mag te bàyyee la ko dañoo wa di fay luyaas léegi hmm. ndax moom ki faatu ko jigéen ñi muur ñoo am àq dëkk fi ba seen muuraay jeex la ci des nag ñu des ñoo ko bokk te séddooguñ ko kon nag am mën naa am ñu fi dëkk am ñu fi dëkkut fa dëkkut te doon mag te bàyyiwuñ seen wàll seen wàll lañ mel noonu yëpp lu mat di waxtaane la lu mat a leeral la woon na lool bëri na lool jërëjëf sëriñ bi muy laaj yu leer yoo xam ne mbokk mi xam naa ne su ko seetaanee incha allah dina ci bëgg kii moom dafay laaj mu ne ndax ñi nga jullit yi nga xam ne dañuy dund ci réew yi xam naa cité na benn réew waaye loolu yaatu na ci réew yëpp ñu ci bari nag dañuy sukkandiku ci Arabie Saoudite la wax waaye xëy na dafa gis ay naar yu fa nekk rek mën nañu doon ay saoudia wala wala marocain wala wala tunisien waaye daal ñoom daal bu leen naar yi ne woor leen ñu woor buñ leen ne wori leen ñu wori euh, mu ne ndax loolu ñoom sénégalais yi nekk foofu loolu Euh, dagan na ci ñoom wala daal dana leen wàññi dara ci seen diine waaw xam nga lu mel noonu sëriñ Abdul Ahad li ci jaadu woon mooy ab jullit fu mu nekk na xam ne ab jullit la mhm. dañ ko sant muy bàyyi xel weer mhm. di ko séenu weer yi fépp lay kaay dëkk Europe yooyu am na fa ay nit ñu yitte weer yitteel am na mbokk ma sa wax Italie ne ma ñun da koy topp di ko séenu di ko gis mhm. gannaaw nag loolu am na loolu lu ñu waroon di bàyyi xel la su ko defee fexe ba su seenu weer jotatee ñoom ñu seenu mhm. suñ ko séenoo gis ko baax na suñ ko mhm. gisut ñu xam ne gisuñ ko mhm. suñ demee ba nekk ci roq boo xam ne nag weer mënu faa feeñ maanaa gis nañ ne fii kat euh, mënu fee seen weer li gën a dëppoog euh, ponk charia mooy nañ xool réewum jullit mi leen gën a jege de Espagne xëy na Maroc sori fa lool. Ah. Ah. tey topp mbir mi daal ñu topp sukkandiku ci Maroc waaw. Ah. waaye sukkandiku ci ay naar wala sukkandiku ci senegal ñoo ci yem yëpp fu leen sori lañ ndax gis yu day wóor ci barab yooyu. te diine nag nit nag diiram da ko war a ñor. waaw jox ko yitte te fi ñu toll maanaam loolu jëfeetut jëfeetut xam loolu. Mhm. am na ci ñoo xam ne nag moom dañ naan ñoom senegal la déglu. te te te mën naa am ñu sori senegal lool Euh, waaye duñ duñ duñ sukkandiku ci ci yooyu loolu bëri na ci dama xamul nag loolu. loolu njuumte la sëñ Ablaat. Hmm. Cheikh Mouhamadou Mourtada radiyallahu anhu daan na ko faral di wax bu génnee. yoon hmm. fu ci leen ay jullit ngeen seen di seen weer yi. Hmm. jàppalante ci diini su ko gisee ngeen sukkandiku ci loolu su loolu mën tàmm réewum jullit mu leen a jege ngeen di ci sukkandiku loolu la lislaam santaane. loolu daal mooy diine waaw. jërëjëf bi euh, mbokk mi dafay laaj ne ñaari way dencante yi nga xam ne ñoom ñaar daal biñ fasee seenub sëy ba léegi musuñoo sangu janaba wala kenn ku ne ci ñoom kenn ci ñoom xamut nu ñuy sangoo janaba wala dawuñ ko def tamit ba yàlla dogal ñu am doom ñoom muy laaj ba xam ndax loolu dana jeexital ci doom ji wala déet si seen ñàkk sangu janaaba kooku te ñu ngi doon continuer di jaxasoo. waa xam nga doom moom. wala taziru waaziratun wizra uxra. Mhm. bakkaaru bakkan di su ko yan benn bakkan. Mhm. ñàkk sangu moom. jëriñu la bàkkaar bu rëy la boo xam ne am na yenn yu toppit nag seen blaat hmm. mooy nañ bàyyi xel na ñoom boobee ñu tàmbalee sëy ba nëga ni julliñu fi julli bu baax maanaam boru bu fekkee ne sëy nañ at am nañ boru fukki ati julli hmm. ndax julli day ci labo te ñoom comme sa jaaxasoo nañ te sënguuñ farat labul julli bu fi julli baaxul saa buñ fi laaleeb kaamil am nañ bàkkaar loolu it moo bàyyi xel la hmm. kon yu rëy lañ boole waaye loolu nag ñoom ñu ko def la soxal seen doom juróom nekku ci xanaa doom de mën naa loru ci way jur bu ban ndax wa day jariñu ci baaxuk way jur kon way jur bonee it ndax bu juddoo ci bi abu mel noonu ñu koy jur ndax li ma jàpp mooy ñi ñu dul sàngu farata moom gëmuñu danañ julli kon xëy na duñ duñ jàpp gone gu màgg foofa nag diine mën na ko bañ a ñor mm. kon bu amee loolu rek ci wet googu doon mu roy leen ca leen ne ba mel na ñoom bopp ba mel na ñoom waaye nag du ne def nañ bàkkaar rek bàkkaar boobu day doon ab légét bu topp ay do ay doom jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj mu ne lan mooy nisaa bi asaka yi xeet yi nga xam ne dañ koy bàyyi fii ci Sénégal maanaam lu mel ne dugub lu mel ne euh, xëy na gerte la ci jublu wala mboq wala xeet yi nga xam ne dañ koy bàyyi ci Sénégal daal lu toll nan nga ciy am ngir mën cee génn asaka loolu moom xam naa ne ñu ngi ci waxtoom fi ne nii sax waaw ci borom xam yi gëstu wax mooy bu dee gerte moom Euh, trois cent soixante quinze kilos la ñu wax. trois cent soixante quinze. ci nattale. Hmm. Euh, bu dee ceeb. Hmm. sept cent cinquante kilos moom dugub dugub bi suuna. Hmm. bu dee yi ci des nag ay ñebbeeg yooyu moom six cent kilos. waaye loolu nag seen blaat. nattale la. ndax liy cosaan ci yooyu du natt du peese. yooyu li ci cosaan mooy da wut am nattukaay li ñuy wax saa lañ daan natte euh, xam satu aw soq. mooy nisaab wasq mooy sittoona saa saa mooy ñeenti mudd nga xam ne kon ñetti téeméeri saa moom la ñuy mooy nisaab nattukaay boobu nag bu ñu ko amoon moo gën a jàpp ni ndax li tax euh, moo gën a wóor ndax mooy ne ñaari xeeti pepp soo bilaat mën nga ko am fii mhm. ñaari xeeti ceeb wala dugub nga natt pot bi ba mu fees nga peese ko nattaat pot bi ba mu fees nga peese ko duñ tollaw ndax tollawuñ di saay moo tax fi ni wax ne nangam rek la loolu du yomb. Hmm. mën na ko ëpp léeg-léeg mën na ko yées waaye daal li ci borom xam-xam mooy natt li boobu la donte nag baykat bi mën a def yitt ci amub saa wala am mudd mooy li gën. xanaa su bàyyee ba noppi benn saa la cee natt bu ko peesee multiplier ko par trois cent. Hmm. nu mu toll rek bu amee lu toll noonu moo xam ne am na nisaab loolu moo day jàpp ni ndax. Hmm. li gerte gi bay genn gee boo ci nattee benn pot boo ko peesee xam na li gerte gi yëpp noonu yow moo kon loolu boobu lu mat 700 kilos yu dugub moom amoon nisaab. 750 750 waaw. mu ko am ay ku bay am ay 500 ak. Eh, moom matul nisaab matul nisaab waaw. Mm. ah sa génn asaka warut la. Mm-hmm. waaye nag saraxe ca lu baax la. ndax sa sa sarax xam nga eh, day nekk sadaqa waajiba mooy asaka. ak mm-hmm. sadaqa manduuba. Mm-hmm. sarax bi ñu sopp moom amul amul fu mu toll. loo am lu mu tuuti mën nga cee saraxe waaye nag li tax mu nekk farata ceew yow mooy nga am nisaab. xam nga dangay gis ñoo xam ne dañuy def ngar li ñuy wax jaagu dugub bu gudd natt ko ay mètre fukkeelu mètre bi ñu ñu génne ko asaka maanaam loolu luy cosaan li dëgg-dëgg waaw xam nga boo bu la leeree ne li nga bay mën na nisaab moom mhm. fukkeel moo la war bu dee mbayum nawet mhm. fukkeel nag nattukaay bu ne mën nañ ko ci natt mhm. am na ñoo xam ne dañ koy bi fukki saako yu ñu teg jël benn ba teg ne bu dee fukki ton jël benn ton ba teg ne am ñoo xam bu njëkkoon ay jaag bu bu ñuy jaag nag foofu lañ koy lañ koy defaale. dañuy def jaagu fukki mètre. génn benn def xaajis ci benn mètre bi. Hmm. wéy di jaag mu leer na lu dugg foofu rek mooy asaka ja hmm. loolu ay pexe la ci mag ngi dañ ko def. Hmm. am ñoo xam ne ci ay sàq. dañ koy def bu ñu fukki sàq. sàq yu tolloo mel ni sàq na asaka la. kii dafay laaj mu ne euh, kan mooy euh, moo méngoo kilifteef ndax euh, dafa mel ne dañu gis waxoon ne dañ ne. doom moo gën a yey ci méngoo kilifteefu yaayam wala wala yu demee noonu mu ne ndax kon suñu mayee waajur te doom ji àndu ci sañ na ko tas wala déet waaw jigéen de ñi jiitu ay kilifaam mooy doom mhm. doom ji baalixee mooy kilifaam mooy kilifa gën a jege buñ koy maye moo koy maye ginnaaw moom ñu door a xool ñu ci des mhm. dañuy wax nag ne kilifa daa am waliyun qarib ak baid walla ña ñu gën a jege daal maanaam kilifa gi gën a jege man na fee ne geneen kilifa gu sori mayee ko na nekk bu dul ku ñuy forcé ku ñuy forcé mooy jànq boo xam ne mosu dem kër bàyyam ne fi keneen na fi keneen ku ko mayee baaxut ba waaye bu dul loolu keneen mën naa mayee fekk am ku gën a jege comme doom ji keneen mën na ko mayee parce que dana baax waaye moom mooy kilifaam gën a gën a jéggaane moom mooy ko nag mu gën a jaadu moo gën a yey mm. ndax moom moom la ñu war a romb bu amee ngànt wala mu joxe ndigal keneen ko may doo ko may mm. mocc mm. jërëjëf euh, kii dafay laaj naa mooy suñu laaj bu mujj sax ndax waxtu wi jot na mu ne ndax dana dagan ci jullit bi nga xam ne mi ngi dund ci réew yi Europe yi mel na ñëwoon na sax ci suñu kii bale ngir ñuy teew ci e, munasabaat e, ijtimaax yi nga xam ne e, dañ koy am maanaam seen xew-xew yi yi ñu am ñoom muy seen ngénte yeeg kii demee noonu waaw xam nga ci jëflante diggante jullit ak kudul jullit hmm. bu fekkee ne du muxaarib hmm. yéefar boo xam ne daa jël ngànnaay jëmale bëgg laa faagagal hmm. waaye yéen a ngi seq jàmm suñu borom waxoon na ne laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi ddin walam yuxrijukum min diyarikum moo an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim al bur wal iqsaad nag euh, dugal na jëflante boobu teew ci seeni xew yoo xam ne du xewi diine nga xam ne xew ngénte la dëj la nga dem fa masawu ko dégg nga ngeen euh, céet la yi mel noonu moom lislaam terewul jëflante ji li mu bañ daal mooy ñu am seen diine di woote nga dem wuy ji ndax loolu dëgëral ay ay neen la te ab jullit du dëgëral ay neen jëflante yi nag ci ci buntu ay nit yu jëflante la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa daan jëflante yahudi bi muy génn àdduna am na mbubbam muñ tayle ci dugub juñ la boon benn yahudi hmm. xam ne kon mi doon doon jëflante ak ñoom ci doon gi doon ay nit seq àdduna bokk àdduna hmm. waaye nag duñ leen duñ leen wuy ji seen woote diine moom waaye bu dee fi àdduna ay aada yi moom yooyu yëpp mën nañ caa jëflante ñoom bu fekkee ne jëluñ ngaa naa jëmiñ hmm. te it jëflante bu rafet bu sax sëñ baat léeg-léeg nit dana ci jaare ba ba dugg ci lislaam am na ñoo xam ne dañoo seq kay jullit ñu wan leen jikkoy lislaam ca dal gaag woyof gaag laabir gaag loo am bokkoog nga mag ba tax ñu fa dugg ci lislaam te loolu nag doole la yëm tu islaam waxoon na imaam ali ne ko kenn nit gindikoo ci yow moo gën alali adduna yi alal yi gën a cher ci alali adduna yi kon lu mel noonu sax daf ko passé di ci daawawaale di wujji wujji mu rafet di leen jàppale di leen xamem benn ñoom ñu dugg si wala seen njaboot dugg si loolu aw yiw lay doon. jërëjëf sëriñ mu mel ne waxtu wi jeex na xam naa kon ñu jox la nga tàggoo sa. ok xanaa dellu di siyaare bokk yëpp di leen baal di leen baal wax di yàlla it jotaay bi yàlla jariñu ci ñun leen sant it di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane jërëjëf it bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan ci seen seen MKTV ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant sëriñ Mbacke Abdourahmane di ko gërëm di ko ñaanal Euh, seen émission gàggantiku kon fii lañ koy yemale incha allah di leen dig daje ci seen beneen émission ñu gërëm bu baax euh, ñu àndaloon ci liggéey bi sëñ Abdou Khadir Bousso sëñ Mouhamed Ngom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam